ak lépp loo nam liggéeyal sa maam sëriñ bi defal la ci lu kawe sa njort dañ lay joxe kaddu gi rek nga daal di ñuy dolli ci xaside yi mm-hmm. kon Serigne ahmad bismillah wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki talibé yëpp ma ngi leen di nuyu di leen sant bu baax di am mm-hmm. mbégte ci teew ci jotaay bi ak bërëb bi <coughs> nga xam ne liñ fi yëngu lépp ci sëñ bi la jëm ci sëñ tubaar jëm te am nañ njort rafet njort njort bu rafet ci ne sëñ bi gërëm na ko ak mu ne noonu fi ñëw waaye doxin bi dafa soppi ko ci bërëb la boo xam ne des fi xëy di fi jàng ay xasida ci lim boo xam ne kenn mën ta xam lu toll ba waxtu waxtu waxtu ñu ko tàmbalee ba mu delsi waat ca ca suba sa ñu doog a tasaaroo kenn ku ne nekkati itam ci jàng xasida loolu liggéey bu rëy rëy la xam naa nag li ma doon rek mooy xasida yi moom nañ ko gën a fonk te gën ci jàpp te xam ne lu ko kawe ci defar doomu aadama moom amut ndax sëñ Tuubaa moo wax ni far bi nadmi wa li nasri kullu ma nasri kullu ma farra ilayhi al awliya wal ulama mboolem nee na borom xam-xam yi ak wàll yi lañ daw jëm ne loolu moo daw jëm ci sama mbind mi maanaam la ñuy sàkku ci mhm. moom daa jug di sàkku man sama mbind mi nekk ci sama sama mbind mhm. kon nag waaye di sàkku ci doxin gaa ñu baax ñi ci luy yombal sa dox jëm ci suñu borom tabaaraka lépp mi ngi ci xasida dafa aaji rek def ci tey ak seetantal ak and ci ñu ko xam bu bañ cee manam waru ndax lele léeg danaay di wax nit ki bu xasi xasida dir su ñew rek day tamale am yu mi ci xolam ak soppi ko yooyu nak mbekté moomu mën na japp bam ba gañu tarxiis gaañu baax ni dañuy wax ne xol musiba ci ab ab mourid ndax dañ daa yomba tarxiis loo nit ki nit ki bu bëggee rek mën naa tarxiis te du koy sëñ Tuubaa dara wax ne na ngeen moytoo yëg seen bopp ndax ku yëg boppam yàlla réer la ku yàlla réer seytaane ba mat la ku seytaane ba mat ca safaan ba jëme dala jëme loolu rek laa bëgg misaal foofu mooy ki koy jàngit na ko jox yitte te bañ cee gis daray boppam te waxtu ne lu mu defit mu bañ mu xeb ko bàyyi xel ci li sëñ bi waxoon ne wa rubbama ibadatun kathira qad absadatha lahdatun xaqira sehingga bi nee man jamu ya yàlla bare bare bare waaye benn saar rek benn lax nga rek mën naa ñëw li nga defoon lépp yàq nga tàngal ca ca jëlgën nga ne ko doon dox ba sori ñu delaloon lépp jëlgën kon loolu yooyu rek buñ ko bàyyee xel gis naa ne moom amut lu gën gaaw ci fu góor di Ag, ci góor ñi andoona sëñ bi xasida yi amul lu ci gaaw moo ko digal muy yare ak taxawal yoon yi nu xam muy yoon murit yonent bi ko ko digal nee na yonent bi wax saafahani la moom ni ñam ak sama sama nopp ne ma nit ñi ci himma pëstéef te bañ a ci jàng dem kese rek te sëñ Tuubaa ku ko xamoon ak pëstéefam fa mu àggoon moom ak nam meloon ci yonent bi lu ko yonent bi digal du ko mos du ko bàyyi mm-hmm. ko taxa maanaam yonte te moom fi sëñ bi àggoon loo si suuf gis ko ci àgg ci pëstéef sëñ Tuubaa addunam sëpp da ko jaay ngir bëgg gum bëgg yonente bi alayhi salaatu wa salaam yoon xoolee coono yi ko dal ci adduna yi def yëpp dafa wax ne moom li ko teg du dara lu may sax jëm sax ci tagg yonente bi ak bëgg ko ak di ko topp loolu rek moo koy indil coono yi adduna yi ñu wax ne xusóor yi xalat wal ahlu anni tafarraqat li matxi alladi anhu almadihu qasiru eh, sama kër yëpp wér njaboot gi tasaaroo nañ coono yi yëpp nag neen leen rek mu ko teg muy tag gi ma sax di tagg yonente bi ak di ko liggéeyal may gi mu ci moom dara bañ ko jënde lenn nen loolu rek ko ko moo tax bi ko yonente bi digalee lii da ci defoon yitte ci di eh, yar nit ñi di leen teg ci yoon woo xam ne diir su néew ñu bokk ca gaañu noonu la ci mujj gi nag yàlla dogal mu xat xataay boo xam ni mom ci moom dara wax ne tërbiya taqwa la la def ni ma ma mënatuma taqwa kenn moo tax nag ci sama ya- yaakaar lim da yare lu ci bari mu def ko ci xaside yi motax ngeen gis muy wax eh, kitabati faqat shuyuq at-tarbiya wa kulla xayrin wa suyuqa tarqiya mooy xaside yi ño kawé ni ñi defaree nit ño ci kawé serigne tarbiya ak serigne tarqiya ndax serigne tarbiya ak serigne tarqiya bo nekkee dala la digal mbaa mu teral la mbaa mu def la wala mu bàyyi la wala mu sax dal sa kaw benn bés wala mu xaw meral la wala yooyu dana xasiree ne moom duñ wax yow doo dégg ñu wax du doo dégg ñu na cal rek di jàng ne suur nga gis ne sa xol na yaa nga ci yoon wa di wéy yaa ngi yàlla defal taw fexe daal ñu mën ci jëriñu te moo dem loo xam ne ay ay ay luy gàllankoor la yàlla nu yàlla nu mooy hmm. ci dal di Sëriñ Tuubaa hmm. asalaamaaleykum comme ni ma waxoon rek ca njëlbéen nga li ngay doon di waxaat kaddu yi li muy gàtt gàtt yi làmboo na njariñ ndax nii rek la yow it liñ lay waxoon rek lañ lay waxaat ku ne gis na sa bëgg ci xaside yi loolu day mel ni donga yëpp it seede nañ ko kon dañ ñaanal yàlla na la bayitu xasida yi singil yi amiin yaa rabbal aalamiin li sa maam maam maam Thierno di séddale ñu ngi sant bu baax a baax bégg nañ ñi nga xam ne alxadime gi hmm. ñu ngi fasanteeg yow kóllëre goo xam ne bis du ñàkk def nañoo ko daaru moxti waxtaan yu gën a yaatu ci barke Sëriñ Tuubaa nga xam ni ndax gis nañ alooxaa gi ni <coughs> say say say kaddu mu ngi ciy jàll bu baax a baax waaye nga ñaanal ñu it lii ñuy yëngu hmm. nga xam ni dara taxul ci yëngu lu nga xam ni kenn ku nekk fa nga nekk wala la nga mën rek ci ngay mën a jàpp ni ci ngay liggéeyee sëñ bi ñu xëy na ci fi wàll gi lañ jàpp ne xëy na ci lañ bëgg ñu di ci liggéeyal sëñ ñu ñaan ñu ngi lay ñaan it xam naa ne du ñàkk des na ñëw daaru mox nga defal ñu waxtaan yoo xam ne mooy gën a yaatu ñu ngi lay sant bu baax a baax